docteur Abdou Karim jaw euh, maa ngi lay nuyu. Ah, voilà docteur Abdou Karim euh, Diaw nga bokk ci alliance euh, nationale pour la cause palestinienne fi ñu toll nii nag guerre bi métti lool si diggante Israël ak Palestine déjà yow ban jàngan nga am si retouru hostilité yi si Israël ak Hamas daal la ñuy wax voilà. waaw damay damay. xëy na jéem a jubbanti loolu parce que fekkee dañu wax ni Israël ak Hamas ñooy xeex dafa mel ni euh, benn group bu bokk ci waa Palestine la Israël di noggatu alors que demagul noonu ñooñu ñu rey depuis samedi ba léegi xëy na soo xoolee ñi sa bokk Hamas suñu motee dix pour cent duñ ko ëpp soo moytuwul kon peuple palestinien bi la rey te loolu tàmbaliwul tey ñu ngi tàmbali depuis bi nga xamante ni waa àdduna fekk nañu ab dëkk ñu xaaj ko ni gan ñi nañu am cinquante cinq pour cent ci dëkk bi ña fa dëkkoon nañu am quarante cinq pour cent foofu la problème bi tàmbalee ba léegi ñooñu ñoo nekkoon gan ñi muy israéliens yi di yahud yi ñoom ñoo continué ba léegi di noggatu euh, waa Palestine àdduna bi tàmbalee ko ci États-Unis ak waa ak ñeneen dëkk français ak Angleterre di leen jàppale. jox leen ay armes ñuy rey jullit ñi di rey di rey am na ay chrétiens même yoo xamante ni ay palestiniens lañu kon problème bi foofu la tàmbalee moo tax fekkee da nga ñëw ci dëkku nit euh, jël ko di ko noggutu il faut ko fayu ku ne mu mën a fayoo ñun bi nga xamante ni suñuy tubaab maam di leen xeex mais di di di leen suñuy maam dañoo xeex moo tax ñu jàpp ni Lat Joor euh, mooy héros national parce que moom dafa doon xeex ba ñu rey ko ci France bi ko waa Allemagne occupé ñoom danoo xeex ba ba génn euh, Allemagne donc tey aussi euh, lii xew Palestine c'est tout à fait normal pour que ñii ñi jël seen suuf fayu booy récupérer seen suuf nañ ko mën a defee Euh, tey ji Abdou Karim euh, Gueye euh, yow déjà Abdou Karim Diaw plutôt pour yow responsabilité bi Hamas am si si jàppante yi parce que ñu bëri nee nañ moo njëkk a cuq lan mooy responsabilité wu Hamas ci guerre bi am actuellement. waaw loolu kay mooy jaxase bi nga xamante ni moom la dëkk yu mag yi ak seeni média seen rajo ak seen télévision ak seen journaux di def parce que Hamas dañ ko occupé. Palestine dañ ko occupé ñoom nanoo jël seen suuf saa yu neexee Israël mën na ñëw tiim dëkk ba bombardé delluwaat léegi ñuy dem ba sonn dañuy fayu li Hamas def mooy fayu ni mu ko mënee léegi nag ñii nga xamante ñoom ñooy euh, Israël ak ñu leen di jàppale ñoom ñoo nekk ci xeetu naafeq goo xamante ni damay tooñ natt nit ki ba pare ci nit ki fayoo ñu ni ñoom moom moo indi coow li mais coow li li ko indi moom mooy waa Israël ñoom ñoo jël suufu jàmbur non seulement danoo jël suufu jàmbur mais toog ci kaw jàmbur boobu di ko noggutu di ko bund xatal ñooñu nag mënu mën a fayoo rek lu ñuy fayoo. tey jii euh, communauté internationale ban rôle la ñu war a jouer pour yow par rapport ak crise bi am ci diggante Israël ak Palestine. communauté internationale moom dafa war a doxal jàmm dafa war a doxal yoon. ONU bu ñu ko doon créé ginnaaw deuxième guerre mondiale dañu waxoon dañu bëgg jàmm am na ci àdduna bi jàmm nag mënut a am su fekkee maandu te amul su fekkee dëgg amul te lii nga xamante ni mooy xew tey ay lu ëpp juróom fukki ndogal ONU génn na ko ni yow Israël war yaa tooñ yaa tooñ ci lii yaa tooñ ci lii yaa tooñ ci lii Israël day jël yooyu nga xamante moom la ONU wax mu sànni ko sa mbalit ma Amérique di ko xool waxu ko dara France di ko xool waxu ko dara Angleterre di ko xool waxu ko dara Allemagne di ko xool waxu ko dara dëkku euh, kii yooyu yëpp dañuy ñëw gis dëgg gi teg ci seen tànk bàyyi Israël yi def lu ko neex waaye waa Palestine nag ñoom amul sañ ñoo tayu sañ ñoo wax sañ ñoo yóoku loolu nag du yoon moo tax fekkee bëgg nañu jàmm am nanu doxal dëgg nanu doxal yoon Hmm. Euh, yow jàpp nga ni docteur Abdou Karim Diaw que jàmm war na mën a am si diggante Israël ak Palestine. ah war naa mën a am fekkee dëgg am na ak maandu de loolu kay dafa war a am. gëm nga ko daal. waaw euh, hmm. loolu kay euh, alaa xaal mbir mi mënul continuer. Euh, léegi tey ji euh, ci niveau alliance nationale pour la cause palestinienne euh, yéen naka ngeen fas def pour soutenir le peuple palestinien si si moment yu difficile yi lan ngeen fas yéene organiser fii ci Dakar au Sénégal. waaw bi mu tàmbalee ba léegi ñu ngi ci liggéey jot nañ def déclaration jot nañ def point de presse ñu ngi évaluer. après euh, mën nañu xool yenn action yi nga xamante mën nañu ko def marche mën na cee bokk su fekkee effectivement autorisation am na donc euh, ak yenn action yi nga xamante ni yëpp gis nañ ni dina am efficacité euh, ci jamono yi ñu toll. tey jii pour yow lan moo war a nekk taxawaayu réewu jullit yi ci àdduna bi si jafe-jafe Palestine bi. réewu jullit bi mooy jàpp jàppale seen mbokki jullit yi parce que. xam nga loolu xadis yoon sala sala moo ñu ko wax mhm. jàppale sa mbokk suñ ko tooñee ak tooñee ñu ne ko suñ ko tooñee moom xam na na ko leen koy jàppale mais si tooñee nag ñu ne da nga koy jàpp si loxoom ni yow yaa tooñ waaye fii nag moom dañ leen tooñ kon dañ ko dañ ko war a dañ a jàppale ba nu jotaat seen àq dañ leen war a jàppale ba bombardement yii nga xam mooy continuer ak euh, wër ndomb gi ñu leen wër ndomb ni lekk du dugg ndox du dugg courant du dugg carburant du te Israël moom kese nekk juróom-ñaari million imposé ko juróom-ñaari milliards doomu aadama lool loolu loolu loolu yoon donc jullit ñëpp dañ ko war a ngir nga euh, tubaab yi wala euh, ñi nga xam ne occidentaux yi fekkee seen intérêt dañ ko menacé seen parandoo dañ koy bund xataal jaral na leen ba dog ay relation jullit nag ñoom ñoo war a am seen fulla bopp mm-hmm. tey jii lan nga doon xaar si président Macky Sall par rapport ak situation wu euh, kii bi guerre Israël Palestine bi. waaw xam nga euh, ONU dañu fa taxawal benn comité buy wax ni en fait euh, droit palestiniens yi il faut ñu sàmm ko Sénégal jiite woon ko Sénégal yàgg see am taxawaay bu bu am fulla bu honorable bu ko sagal sagal euh, africain yi sagal jullit ñëpp waaye lii mbir mi xëyee dañu dégg ni euh, waa gouvernement bi dafa ñëw dal ci kaw Hamas mel ni euh, problème bi mi ngi commencé ci Hamas mais mel ni Hamas moom dañu war a bàyyi Israël di leen not saa yu leen neexee ñu ñëw bombardé delluwaat après ñoom duñ def dara kon problème bi tàmbalewul ci ci nga xew mais gën naa xóot loolu kon le fait que ñu condamné Hamas dama jàpp ni njuumte la et que yaakaar nañ ni euh, nguur gi dinañ rectifier loolu ne seen solidarité bu fët bu wër par rapport ak peuple palestinien bi dénoncé condamné lii nga xamante ni moom la Israël di def te loi internationale droit ko muy blocus bu ñuy def bombardement civil muy def euh, ak yi nga xamante ni yëpp c'est contre c'est des crimes de guerre te ñu ngi koy def. Mhm. ñu gis ne aussi ba léegi ci guerre bi Israël Hamas TikTok nee na supprimer na lu toll ci cinq mille cinq cent mille vidéos ak huit mille directs yoo xam ne da doon wane situation bi am foofu noo ko gisee. bon man xam xam ma motivation bu leen euh, tax ñu def loolu. Mm-hmm. waaye daal xam naa ni euh, le fait que ñuy wone loolu euh, mën na wone mën na tax nit ñi yëg barbar yi nga xamante ni ak njaaxum yi nga xam ne ak nga xamante ni ñàkk mite ak njaaxalle ki nga xamante ni moom la israélien yi di def foofu te loolu nag fekkee weesaaru na ci àdduna bi waxuma la dëkk jullit ñi waaye même dëkk yi nga xamante ni ay jullit. mën mu di fëpp ne ne lii Israël di def mais na ko arrêté tout suite te ñooñu seen population ñu euh, seen nguur ñu ngi am problème xëy na loolu moo tax ñu ko ñu koy daw waaye ala kulli xaal nit ñi moom war na fexe ba xew lay xew la xam lay xew foofu euh, ngir def pression afin que ñu dakkal yëpp njaa àll yooyu Israël leen di def. Mhm. wàllum trêve bi ñu doon laam-laamee te te vraiment sax ñu ne amul noo ko gisee. waaw loolu tamit day wane euh, na sax ak ñàkk fulla bi nga xam ne moo nekk ci jullit ñi surtout dëkk arab yi leen wër man man am naa am naa suuf man Égypte ah, am naa frontière ak Gaza samay doomu ndey lanu ñu leen di bombardé di leen euh, xañ euh, lekk ak naan ak même lu fajoo ñu ne la bul bul euh, kii euh, doo amoo sañ-sañu dugal lekk ak naan foofu loolu euh, kay ci ñàkk ñàkk. Hmm. nasax jullit ñu la rek encore. waaw. voilà docteur Karim Diaw kon maa ngi lay remercier bu baax a baax ci tontu bi nga ah, tontu suñuy laaj may fàttali ni yaa ngi bokk ci alliance nationale pour la cause palestinienne